dimanche bi ñuy def conférence de presse bi. Mhm. à la cité Kër Gorgui ils étaient là-bas et pourtant. Mhm. seen candidature validé nañu ko est-ce que da ci gisoon le parti démocratique sénégalais. parce que boobu. jàppoon na ne moom maanaam day déglu fa muy mm-hmm. jógee d'abord muy la nga xam ne moom mooy jógee peut-être ci Karim Wade mm-hmm. ou peut-être les instances du parti euh, pour door a a ñëw décider mën nañu ko nangul mais combat yi fi am ci li nga xamante ne mooy les am na ci ñoo xamante ne déggatoo leen ci Mouhamed mm-hmm. te pourtant recalé nañ te pourtant ñooñu ñi ngi woon au cœur du combat de l'opposition ay Déthié Fall Askan Wi très présent Khalifa Sall également très ci waxuma la première fois bi nga xamante ne dañoo recalé ñenn ñi. ba doon xaar peut-être li nga xamante ne moom mooy seen ay. nekkatul seen combat parce que gisoon nga fi Moustapha Sarré. <laughs> Mhm. gisoon naa fi représentant ki nga xamante ne moom mooy Boun Abdallah Dionne. muy Mounirou Sy gis fi également Aly Ngouille Ndiaye mais ñooñu gisoo leen et pourtant combat bu ñu mësoon a teg ci loo xamante ne. leen mhm. dafay nësaxal démocratie. Mhm. wala dafay beddi opposition dañ ko taxawaloon mais benn moment ku ci nekk sa bopp nga tal loolu mooy. opposition bu Sénégal. xam nga opposition bu su fekkoon ne les combats yi ñuy wax ni intéressé na leen et que jàppoon nañu ci dès le début moom mooy ñu exiger le fichier électoral kon ñi mm. dem ci dialogue bi ñoom ñu exiger le fichier électoral pour eux d'abord mm. mais également pour candidats yi nga xam ne sax demuñu ci li nga xamante ne moom mooy dialogue bi parce que fichier électoral bi ñoom ñëpp lay concerné mm. tey jii tey garantie yi nga xamante ne PDS amoon na ko ci dialogue bi ba jàpp ne Karim Wade mii dafay daf dafay bokk ci ci élection yi aujourd'hui tey garantie yooyu tey dañu moom mooy élection boo xamante ne bu ñu ci demee gannaaw suba Karim Wade du ci bokk. Mhm. et pourtant bi ñuy dem ci dialogue bi xëy na ñoom jot nañu garantie yoo xamante ne. Mhm. Karim Wade dafay bokk ci élection février 2024. Mhm. amaana la fay tukkee sax mën na doon loo xamante ne lu koy favorable lay doon mais boobu parce que prévoir lu ñu woon lii mooy maanaam li tay li kese la ñu gis tey dañuy àndandoo porter un combat mais kenn ku ci nekk bu gisee boppam daatul xam ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon. parce que a des ma yàgg a wax fii sur le plateau que ne ce ou d'une personnalité peut-être politique. mais combat de principe la waroon des combats de principe. ñun am na ci loo xamante ne benn moment bi ko bi muy dal taskatu xabaar ñu di ko xeexal taskatu xabaar yi li ma doon wax fii que ce sont des combats de principe. te yow mhm. sa corps la c'est-à-dire que nit ki lii dal na ko. te nga jàpp ne am na loo xamante ne nekk na ci yoon am na loo xamante ne du ci yoon mais da ngay combattre loolu. ba mhm. keroog ngay am gain de cause ci loolu. Mhm. mais su fekkee ne da ngay raté ces moments de combat de de principe. li nga xamante ne moom la Abdoulaye Wade réussir woon. nga xamante ne bi muy jàkkaarloog Abdou Diouf c'était peut-être plus difficile période boobu noonu que jamono ji parce que jamono ji am nañu plusieurs télévisions ku ci nekk mën nga dem ci plateau défendre ki nga xam ne moom mooy sa leader mm. am nañu les réseaux sociaux yi nga xam ne dañu am importance ci dëkk jamono jooju y avait que RTS boo xamante ne télé boo xamante ne jamono jooju propagande bi ñuy wax propagande gi euh, noonu la noonu ci jamono jooju Abdoulaye Wade di opposé wu ak le président Abdou Diouf mais à un moment dañoo toll foo xamante toute l'opposition dafa teeroon li nga xam ne moom mooy les divergences bi ñuy dem di ko jëli bi ñuy xeexlee carte israélienne parce que jàpp nañ ne carte yooyu baaxul pour que ñu indi ko Sénégal mm. mais ñoom ñëpp dañu àndandoo xeex ko bi ñu bëggee Alassane Balde est dispo ah bu ñu ko mënee jëleel euh, mu defal ñu situation bi ci conférence de presse ak ak la fay génnee donc pour mën ko dégtal euh, téléspectateur donc Alassane mën nga téye sa téléphone waa Régis ñu ngi jokkoo ak yow euh, nga ñu mën a am quelques informations par rapport ak la fa xew alors As donc dénk nañu la dénk nañu la loolu alors Fatma Diop kon jàpp nañu ne lu jëm ci. bi processus mënuñu ko yeggali wala def ko ba ci cëppaandaw la te ñu ñuy duppee les cinquante candidats recalés wala spoliés euh, duñ ci am seen mot à dire. am nañ ci euh, leur mot à mm. dire. parce que mm. la raison moom mooy tax gis nga ni tey jii génn nañ di wax. boo leen dégloo également da ngay xam ne ne nit ñi aussi am nañ li nga xamante ne moom moo di kàddu boo xamante ne war nañ koo wax ci biir affaire yi. Mm-hmm. parce que euh, Fatou mu ngi koy wax léegi euh, c' est tellement bizarre euh, configuration wu suñu seen politique bi nga xamante ne finalement danga leen di xool da nga daan da ngay réer parce que tey boo xoolee tey. parti démocratique sénégalais représenté par Mayoro mu ngi ci biir conférence ah de presse ah bi n'est-ce pas ñu dem merci beaucoup mi ngi gis merci beaucoup ñu dem assemblée nationale nga gis député Benno député euh, Waddu ñu nekk euh, benn finalement da ngay toog naan scène bi finalement nu mu demee nii nan la demee nii parce que finalement da ngay réer ci ci ci ni ñuy doxalee ci ci ci réew mi mais mm. dans tous les cas aussi itam man mën naa wax ne ne ñii am nañ leur moo à dire ci li nga xamante ne moom moo nekk ci élection bi ci li nga xamante ne moom la ñu def parce que dafa mel ni man dañoo commencé di jox raison liñ doon wax lajj-lajj yi ci conseil constitutionnel bi c'est ça man nag fi mu toll nii parce que boo dañ leen di jalisaat merci beaucoup <laughs> ah, comme ñu ñu def évidemment voilà yuuxu nañu fi rëq-rëq yi ca mm. conseil constitutionnel voilà dañuy mën nañu jël lii au rebond voilà jafe-jafe euh, à double nationalité yi voilà euh, porté waat voilà donc ñoom dafa mel ni dañ leen may dëgg tey jii ca depuis début bi ñuy wax ne ne y a des yoo xamante ne war nañ ko saytuwaat war nañ ko xoolaat au niveau du conseil constitutionnel et tey ñu gisaan ne ne tey problème yooyu peut-être nit ñi bàyyiwuñu leen woon xel mais tey ji loolu am na déjà validé nañ fële gis nañ kenn ci candidat yi am na li nga xamante ne moo di double nationalité donc foofu aussi tam euh, war nañoo toogaat ba tey ñu tëggaat mbir yi ñu xoolaat bu baax a baax ana lan mooy war a doon taxawaayu conseil constitutionnel par rapport à ça Fatou mu koy waxtu tout à hmm. l'heure il faut ñu gén ñoom itam ñu jàppale ñi mën a communiqué comme ni ñu ko doon defee bu fekkee pare nañ ci processus bi ba pare bu 21 a jotee dañuy génne benn communiqué wax ne nii la demee nii ak nii nii comme noonu lañ def ba tey ñu ngi ci nañ gis nañ ne voilà bu ah. fekkee ne ne gis nañ ne génn nañ ba am na ay plainte yoo xamante ne waxoon nañ ko dinañ ko yëkkati ci ñi nga xamante ne ñooy dal seen kaw ak ñi nga xamante ne ñooy bëgg ŋaññeel ni nga xamante ne moom moo di deru conseil constitutionnel mais c'est bon aussi tam ñu gindi ñu un peu concernant situation bi ñuy dund jamono ji Mohamed. alors moo tax ma bëgg am Alassane Balde ak rebondissement yi ñuy gis c'est question de double nationalité. Mhm. Euh, as boo ñu mënee dimbali rek donc nga wool ñu Alassane ñu mën a xam euh, la fay la fay tukkee. Euh, par rapport ak euh, euh, lu jëm ci wàllu woowu spoliés yi ban jàngat la ñu am surtout lu Fatmata Diop wax dafa am solo depuis le début conseil constitutionnel la ñu la ñuy ŋàññi bu ñu ñëwaatee gis beneen rëq-rëq bu nga xamante ne ni saytu gi moom la waroon moom conseil constitutionnel ah ay la yowén mbiri nag Fatou xanaa jar na léegi ñu taxaw ci ak bi le processus wala ñu bàyyi mu dem rek processus bi. kan ci faatu yi. Ah, ah, yow mii kay faatu Abdou Ndiaye. wala xaaral ma jël Alassane nii boog. Alassane ñu ngi Alassane Alassane yaa ngi en direct ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Mouhamed. alors euh, comme que waa Régis dañoo yéex ma ma ma ma ma jaarale la fii rek alors lan la mën a jàpp ci confrance de presse euh, bi nga nekk foofu ci candidat spolié yi oui. nañu wax ne daanaka jeex na c'était daanaka fanweeri simili donc daanaka boo xoolee la am ndax nag ab déclaration lañ nga xamante mu def déclaration nag euh, nga xamante dafa bokk ci a jàpp ko d'information rek mooy te loolu naka Cheikh moo ko wax daal di mm. euh, moom jàpp na ni daal li nga xamante ne moo leen tax a jóg tey ñi jamono ji mooy rek ba li nga xamante mooy reporter élection yi ndax mm. jàpp nañ ne dañ leen tooñ ndax mu demee jaarul yoon rawatina lu jëm ci wàllu lu toll ci neuf cent ni ngi ci biir euh, seen ay parrain ay électeurs alors que donc kon dafa koy def c'était pas avec le bon fichier et kon jàpp nañ ne war nañu mën a xoolaat loolu naam sax nag ci euh, nga xamante mooy Assome Diatta na ko ne président dalaloon na ñenn na ne solo rek mooy en terme d'information majeure mooy dañu mën a jàpp rek mooy euh, ñoom à travers la voix de Bara Dolly xam naa incha allah ñaari yi sax xam naa bu ñu ko dégluwee dañ ko mën extrait de vive voix kon ñu jàpp ne ñoom li ñu bëgg mooy aussi reporter li nga xamante ni mooy yi a it ñu mën nga xamante ni mooy rëq mm-hmm. daanaka kon dañ doon nekk ay candidat donc jàpp nañ daal sélection la gën a gis que li nga xamante nag mooy ci wàllu parrainage yi tax na ñu ni ñu jàpp daal ñu bëri teewoon nañ ci ah, entraîné waa PDS euh, ñu woon ci ñu bëri daanaka ci candidat yooyu ñi nga xamante ni spoliés yi mm. daanaka euh, ñu ngi teewoon nañu ci ndaje bi nga xamante ñu ko xamante fii ci cité góor bi dañu jàpp ni daanaka euh, Mohamed daanaka jeex na jamono ji kon mbokk yëf yi buur na daal jeex na merci beaucoup kon déclaration la woon euh, li ci gën a jàpp mooy <laughs> <laughs> baara doole lañ porté loo. léegi nag xam nga Mouhamed léegi nag ci li ñuy ñëw. moom mooy ñoom tontu nañu ko la nga doon bëgga a laajte parce que ñoom. <laughs> Euh. Euh, yaa ngi doon wax naan ñoom tànk dañ koy tàllal baa ñu tànk ko ah, maanaam kenn ci ñoom wala bokk ñoom nañu jël la responsabilité wax lu ñu bëgg. Mm-hmm. je pense que ne Alassane Balde lu mu wax. c'est c'est tout collectif parce que nee na Assome def daf ne le président la République nee na woon à à à ce moment du processus. Euh, euh, euh, mënuñu lu dul dem processus nañu ko ba pare loolu la Assome jaata wax. loolu la Assome Diatta wax. keneen koo xam ne kon moom Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. waxulu kàddoom il parlait au nom du collectif moom. loolu la la Alassane wax moom nee na élection yi. na nañu ko reporter je pense ñu ci paree xam nga déclaration yi bu amee mm. lu ñu mën a euh, dégg gëm ko mooy la ki fa nekkoon muy Alassane Balde déjà et saluer bu baax mais dina amaat communiqué boo xamante ne dafay gën a renforcer li nga xam ne Alassane Balde moom la wax